di soññee nag ci lii yàlla boole waaye man samay wax fi muy jëm ñun dëgg la ay responsable la ñu tuddee waaye na dañu jaajëfal Baye Alla Sylla mii ba pare. ndax Baye Alla dafa nekk jëmm joo xamante ne bii damaa jàpp ne xëy na kilifa yi dëkk bi sax xaw nañu koo umpale tuuti ndax nit koo xamante ne bii nekkul président ci mu jox ko ñaari dërëm pour mu jox ko ku mu àndal. Mhm. wala mu jàppalee ko kenn Baye Alla alali boppam la àndee ak ñun. te wóor na seexul xaddim ne képp koo xamante yàlla dogal nga bàyyi ko foo jógee boo ñëwee fii ci këram gii li gën a jafe mooy gone ko tuuti moo lay yóbbu ci baal xale bi gën a ndaw barke xaadimu sol boo ne salaamaaleykum lan ngay rox baala laay seet kaay baala laa ngi ci kaw waaye baala laa ngi la allah sala jërëjëf yaa des gor yow nagoo Macky Sall jox la ñaari dërëm sa alali bopp ngay jël di nu jox te yàlla jëmmi Serigne Touba Mbacké ji ta yal na la yàlla ak Serigne Touba Mbacké may ndam ñun dañ lay ñaanal ndax sunu bëgg ci yow dafa rëy duñu ko waxantu waat naa ci rasulillahi ne bu nagari fekkoon tey noo mën a lu luñ la defal rek yéeneen la ko jërëjëf si la yal na yàlla guddal sa fan sa yéene dégg naa ko soxna su baax see wax na ko léegi ak sa soxna baax yi da koo defaraat ba wax dëgg yàlla amuñu fayam Macky Sall la ñu defal ñun amuñu fayam nan ànd jàppale woo waneel carte bu marron bi mooy suñu njëriñ suñu baa ngi nii di suñ galas di di doomi dëkk bi ko jàppale gis nga nañ yeewu ci yëf yi li daa amoon njëriñ dañ ciy nekk bàyyi la si mii waaye ñii toog fii ku ne daa bàyyi mu gees ko bu baax a baax ndax mbooloo mi ne ci ginnaaw bari na trop xam na ni yéen mu jàppale ko ñu ne ñu ngeen jëf ñu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi nag di si jiital ñi nga xamanteni ni fi teewal borom dëkk bi di borom Madiana wa kër sëñ Cheikh Seye soxna maam sey jité ko ak soxna sëñ tala mi nga xamanteni ni ci cadre kàddu sëñ Cheikh Seye la ñoy tok si jotaay bi. di nuyu suñu coordinateur Baye Alla Sylla bi nga xamanteni ni waral jotaay bi di nuyu suñu gan yi nga xamanteni ni ñi nga xamanteni muy. Euh, sëñ Fallou sëñ Galas Kaltom mi nga xamanteni ni jité liste département bi dañu ñuy yaakaar ni sëñ Galas yow ba ñu jité lé da nga gagné won ndam li si yow lañ ko yaakaar kon jàpp nañ ni ren buñ la jiitalaatee dinañ koy gagné nañ gëm loolu sëñ Cheikh Seyd dafa sóobu ci xeex bi képp ku koy yaakaar jot na la ndigal pour nga voté liste bii kon ñun waa Madiyana amuñu beneen pexe du ma dellu si waat ci ay réalisation président de la république du ma dellu si waat ci ay réalisation Baye Alla Sylla ci Madiyana waaye li nga xamante ni moom lay ñuy wax mooy waa Madiyana ak ñi nga xamante ne mooy waa Daara Xuddoos ak waa Umul Xuraan ñi fi dajee ñëpp ñu bi nga xamante ne mooy bopp fas bi bopp fas bi mooy bi nga xamante ne moo wóoru bopp fas bi mooy bi nga xamante ne sëñ Mountakha moom la joxe ndigal moom la sëñ Cheikh Say joxe ndigal bon na képp koo xamante ne voté nga ko yaa ngi ci ndigal kon nag ñi ngi jaajëfal bu baax Aïssa Badji sa kàddu yi nga fi wax kenn kenn kenn mënatu see teg dara Aïssa kàddu yi nga fi wax kenn mënatu see teg dara kon nag ñun sañ Galas ñu ngi lay dalal jàmm sagal nga ñu waaye nag li nga xam ne waa Madiyana dañ la fay sa wàll ak mbooloo mi fi toog yëpp jërë ngeen jëf. liste coalition Benno Bokk Yaakaar. Alla sila nag tey wane na yoon wi defe naa yëf leer na bu ñu demee Alla ak ñi nga àndal le 31 danañ yëkkati gaa yi ne leen tàcc suuf loolu moom leer na fii nuyu njabootug Serigne Cheikh Say yëfi nekk gépp sëñ Moutala soxna maam Say xam ne suñuy xarit lañ suñuy sëriñ lañ suñuy mbokk lañ te Serigne Cheikh Say nekk kilifa bu engagé wu wax dëgg yàlla ñu dégg ndigal yim joxe. ca loolu lu am solo la ñu koy sant di ko gërëm ñun ñëpp nag nañ àndandoo rek nekk benn xàccandoo dóorandoo le 31 juillet ñu am ndam li asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu Baye Alla Sylla bu baax yow Baye Alla kenn ku nekk xam na ne. ku ne Madiyana da ne Baye Alla Sylla ku xool mbooloo mi xam nga ay gone ndaw ay mag yi jëmm nekk fi nekk yoom ay kàtt. lu wax waxaan nag du bari wax fedd li wax la mhm. dama wax ñu njaboot suñu seex say siis ñu la booxuñu la ndax bëgg ñu nuy politique doona dab rek ñëw ci waaye Madiyana buñ sañoon mooy dàq ci Touba mhm. buñ sañoon ku dikk politique suñu bu dee Madiyana ngay dëkk mhm. ñu loolu lañ gëm rek wax lay yaatal bu baax ndax politique boolewuñu ñoo bëgg dëkk Mbakol ngay ab taalibe koy yaru xami teggin man ñu lu na def da ngaa supporté ñëw ku ma bu la ko def ndax da di ko ci parti bi amoo ci ndombal tànk amoo ci ay millions amoo ci ay kon nag nan la jàppale te dooleel la di ñaan nag ci barke sëñ Tuubaa sëñ Galsum yàlla may ko ndam mook sëñ Cheikh la ndax dooñu dëkk doo nga ci bu loolu jàll tamit ñoom ñoo xam ñoon jàll nan jàppal ñoo mut ndombal tànk ñoom ay ndombal tànk parce que jàppal xale yi ak ndaw yi te gën ñoo jàppale Tuubaa mii nga xam ne war ngeen fee ñëw war ngeen fee daagu ngeen fekk ñu responsable mag di sëñ Aliou Sylla mu amal bis bi ñu war fee mu woote ndaje mi ngir ñu taxawal yaatal liggéeyu Macky Sall fexe ba saam ak ak Madiana lépp Madiana ñu gañe ñu na ñoo leen xamal ne engagement bi ñu jëloon ci kanam président de la République tey ji lañ ko fét lañ ko lii lan waxoon ndax benn yoon lañu wax ay moyen taxul ñu taxul ñu ñuy campagne dara taxul ñuy campagne jëmmal kàddu gi nga xam ne moom lay engagé woon ci kanam président ndax ñun duñ politiciens yu ndaw ñaar fukki at ak nangam ci politique. Mariane Guèye liste ñoo ko xeexoon fii def ay suñu karawaan ba gañ wutoon ci kon jamono Idrissa Seck ñooñu ci ñoo futti ko waata àndaat ak population Madiane yëpp taxawalaat yi Madiane di musta xaar benn aide ci kenn taxawal na fi an taxu Madiane waa Madiane di engagé di engagé seen téeméer ak seen ñaar fukk di xex ñàkkum ndox mi nek bariyaat na ak jafe-jafe ma di nekk bariyaat na ba ba ba tay ji legi nak bu fekkante nak president de la République jël na engagement defal Madiyana ci wala assainissement jàppale waa Madiyana jël ñaar fukk millions ak juróom jox ko jigeen Madiyana ak yeneen projet ñu fooré def kon ñu ne pare nañ pour tak suñu say and ak ñom ba tax rek ba mas di yëkëti nuyo bu tedd di ko tak ci loxo Serigne Mourtala ak soxna mam Say ñu jàllaleel ñuko ci sunu wayjur woowu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko di yëkkati nuyoo bu tedd di ko teg ci loxo sëriñ Alla Sylla ni mu ko waxe maa moom yàgg nañ du tey démb la di nuyu Baay Mbàkke rakkam bi mu bokk magam bi mu bokkal ndey ak baay ak waa Madiyaana ñëpp responsable yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu mbooloo mi ñu àndal yëpp fii li ñu fi dajale lenn rekk la mooy dikk ngir njukkal ak sargal Serigne Alla Sylla ci taxawaayam ak yitteem ak coonoom bi muy daj ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu nekk ci loo xam ne nag li ñu ci soxla yàlla sunu borom defal ko ci lu yéeme mooy am na mbooloo déggoo na ak mbooloom am na fu mu leen féete ba saabu leen soxla u wuyu ko kon ñi ngi lancé appel ci mbooloo mi ñu xam ne li ñu nekk ba taw bi fekkuñu ci war nañ koo sant yàlla mais ñu gën a góorgóorlu ci li ñuy may ndam li ñuy may ndam dak weesuwul yi nga xam ne son excellence président bi Macky Sall def na ko ci dëkk bii rek jar na jàppale ko di sëriñ bi wax ci moom jar na jàppale ko mais liggéey bii mu tàmbali ci Sénégal te war koo yeggale nekk ci biir mandam yàlla dogal ñuy taxawal fukkeelu ensemble ak ñeent ba république taxawee ba tey wax nañ ko waxati ko jëfi président Macky Sall ci Touba wala ci Sénégal Ablaye Abdou euh, Senghor jaar na fi jëf ab Abdou Diouf jaar fi jëf Ablaye Wade jaar fi jëf mais jëfi président Macky Sall mooy ndey di bàyyi jëfi ñooñu fi jiitu ñëpp. man sama xol dafa seet duma ci mën a wax lu bari maa ngi ñaan ci yàlla daal nu ngi wax ci li ñuy wax muy dal ay. ndax maa ngi moom du du léegi yaakaar naa bi may am leen teeg moom boobu sëñ Baara nekk gub xalifa kon sama xarit la nangu naa ni sama xarit la nangu naa ni fii ci dëkk bi ku ma ku ma ko fi gën a xaritoo amul sama xarit la dama yaakaaroon ñu bogal boole ma ci def si bi boolewuñ ma ci bu ci sëñ galas nekkee day mel ne maa ngi ci kon dinaa ko jàppale man bañ xam ne jàppale naa ko loolu mooy li nekk ci man leneen nag loo lu lu waay jeex doo ko ci gis fas naa daal yéen jàppale ko ci li ma xam ci sama xam-xamu politique li ñuy wax nag onze tonnes la ñuy wax man dañoo waxoon onze tonnes bi ñu defee daan onze tonnes dama daan def ni man du ma nangu zone parce que dama am Touba gépp moo tax ma ne woon damay def milieu de terrain milieu de terrain kooku maa ngi koy jëfandikoo ba tey te fas ko yéene dox ubbi naa sama campagne tey daal fas naa ne yéenee wër Touba doole ci xëy na ba ko matee nañ ko wax président dama koo bëgg a liggéeyal te damaa bëgg sëñ Gallas gagné ndax ginnaaw njiglaayam la woon dellu si delloo si na ko ci liste bi dañuy bëgg gis mu gis lu nga xam ne lu leer nañ ci la mbooloo mi rek ñoo koy wane mbooloo mi nag ñun liñ leen di wax yàgg nañoo dem ci élection ñu di ko ñàkk bu leen dof dof lu nag ren lu fi mos la am am na fi li président def gars yi nañ ci ba noppi président dafa yónnee moyens yi mat sëkk moyens yi nag mi ngi ci ñun bu leen yaakaar ne dañoo ñëw di wax te li ñuy wax du ngeen jot seen i moyens yaakaar naa 14 millions wala 15 millions ñun mat yàlla rek jot nañ ko sans compter financement yi Macky Sall kon suñ jotee 15 millions buñ jógee ni danañ dugg ci yaakaar naa ne li ñuy wut danañ ko parce que ñi nag ñi am carte te bind leen ñoom ñoo ciy gën a xeej loolu daal xooloon nañ ñu ngi sant sëñ Galas Mbaam di ko sant di ko gërëm nañ ko jox kàddu gi rek sama xol dafa tedd ba mënu maa wax li ma bëgg a wax